mbokki internetu actu ñu ngi fi ci benen xew-xew fi bu ñu ko gisee moom mooy poste de police bu Diamaguène nek fi ci Mbour mu am lu kemtane lu fi am nak trafic de personnes bu ñu trafic de personne maanaam non lañ ko mëna a ndax jaayum nit la ay xalé yo xamante ne toll nañ ci ñaar fukk ak ñent na police bi daal di découvrir fuñ leen denc di laaj seen parents yi somme ay 2 millions japp 1 million loolu nak nek lu doy war lu bëri ci dekk bi nan len ñu nga Algérie ak ñu nga France ak ñu nga Amsterdam police nak tek na ñoo ñu loxo mo waral tay Dakar ak ci bur ñew fi pour jëm ci xam dara ñu ag ci bir waxtaan ak parents yi ñu am lu ñu dëkkal. lu ma fi indi dal moy sama dom bi moma ma won mu ngi ne dem ni ci wer ak ñaari semaine. Mhm. ji teguma ko bot. Mhm. maa ko bàyyee won mu ngi liggéey combo Mm-hmm. la newoon mm-hmm. léegi mu mu jógee Kombo benn frère mu ngi mu ngi dëkk suñu area mm-hmm. kooku mu ngi tuddee juwe juwe man mii maa ko jàngal métier ñetti xat mu ngi si sama place man teeloo la léegi moo oo sama doom bi si kool moom mu ngi toog Dakar waxut ko Mbuur sa Dakar léegi sama booy bi bu mu ñëwee ba mu agsi si moom moom mu dugal ko si problème bandi yii ñu jàppa ko ñu def ko ah, maanaam ñu jàpp ko daal. dañ ma laaj xaalis. ñaata. because waajib bu ma koolee mu ne ma moom mu ngi toogee Maroc. mu ne moom foofu la nekk rakkam la génne woon si kaso bi si bandi yi mu jis fa sama doom bi sama doom bi mu ne mu jokkoo sama numéro mu di ma audio bi. Mm. mu ne ma sa doom bi laa fekk diggante Maroc ak Tunisie lañ ko jàppa waaye kenn ñemewul fa dem lu mooy man ma ne ko noo may dimbalee na ba ma jot sama doom bi te yàlla tax mu ne ma ah bandi yi de kanaa ma dem waxtaan ak ñoom ma may ko five minutes cinq minutes mu dem mu waxtaan mu ne ak gars yi moom mu ñëw mu ne ma gars yi ñu ne dangay def un million cinq cent nga door a jot sa doom ma ne ko léegi nag un million cinq cent léegi yow foo toog mu ne ma man maa ngi toog Maroc laa toog ma ne ko un million cinq cent mu ne ma ma ne ko ah man na dëgg yàlla miskino la ñun amuñ dara léegi est-ce que foofu leen fa wàññi dara mu ne ma déedéet xam nga du gàttal wax bi daal soo fayut un million cinq cent bi daal ba talaata dañuy ray sa doom carrément mhm. ma ne ko ah mu ne ma waaw ma ne ko ah ma waaru si yàlla ma delluwaat kolaat ko ma ne ko léegi yow kon fu ma lay seen xaalis bi fu fu may jaar ba ma jox la xaalis bi nga jéggal sama doom bi mu ñëw because julli bi ñëw na te jisuma sama doom dégguma ko mu ne ma ah kanaa lenn de ma jox la numéro wéef su ma la joxee numéro wéef nga dugal fa un million cinq bi mun na ricil sa doom bi foofu ma wucci ko mu ñitti si kër gi ma ko ah mu ma waaw ma ko ok mu sànni ma wéef bi dafa am suñ benn mbokk bu toog Dakar hmm. ma jël numéro Wave bi ma sànnil kooku hmm. ma ne ko na ma cegal numéro bii nii ku ko kool fu mu toog a fu mu ne hmm. kooku tamit mu yóbbu ko xam naa xaw ma fu mu ko yóbbu si bureau yi mu génnee ma photo waaji bi ak tuuram bi mu ne ma kii la waaye kii nag eh, ordinateur bi mu kii moom nekkul Maroc Sénégal la toog waaye mu ngi dekk bisaw ma ko ah mu ma waaw ma ko ok mu ne ma lée ma ne ko léegi kon xaral ma jëlaat beneen palaan ma owaat ko moom si boppam ma ne ko euh, grand mu ne ma naam ma ne ko léegi man maa ngi nii yoree xaalis bi un million cinq bi waaye aw ma wéef wéef amul si Gàmbi léegi dama bëgg nga jox ma numéro euh, Orange Money moo moo nekk area ma dugal foofu sa xaalis bi man tam maa ngi ba ma am si moom lu leer ma ñëw si nguur bi ñu jàppale ma because mënuma am un million cinq cent mm. mu ma waxtaan ak moom ma ne ko my grand man na aw ma fi weef gambi fi weef amut eh, orange money moo gën a bari fii léegi soo mu ne jox ma numéro orange moni ma ma seen la bi nga bañ a koy rey mm. après mu jox ma numéro orange mm. bu ma joxee numéro orange bi si la coupé suñ diggante yàlla def nag ba ñu owaat sama rakka bii ku oo sama doom bi moo oo sama rakka bi encore bugga ko jàppaat si kabneel bi boobu booy bi mu ñëwee nag moom yàlla dimbale ko mu gis plan bi nu gars yi nuñ ko buggee jàppee moom mu daw mu rëccu yow jotoon nga joxe xaalis non ah, joxewuma dara su mu toll yow kontaan ci li police def yàlla kontaan naa ba yàlla rek moo xam fu mu em si man si kontaan boobu maa ngi def lu ma mun maa ngi ñaan yàlla yàlla na yokku seen place yi ba si kanam ak kanam wucc leen si réewu Sénégal. kon daal police Sénégal gàcce nga la wax dëgg yàlla police Sénégal tey tey su fekkoon ne sa sama sago la ku nekk day am bureau bu mu bugg a am même président sax maa ngi leen yéene. si ñoom eh, Sénégal fii sa nag si police bu ñu jàppale ni mm. bés bu nekk maa ngi leen ñaanal yàlla ne leen yàlla yokku. bu du fekkoon ne du ñoom ak yàlla konoon sama doom bi dana woon réer waaw man Gambien la waa wasu la waaye sama dëkk si sama bopp mooy Touba Mbakke mooy tampu list bi si dëkk bi eh, sama beneen booy moo woo mu ne ma danga yaa ngi liggéey si dëkk ba ma ne ko ah time bi liggéeyuma maa ngi toog mu ne ma kaa ñi liggéey liggéey am na fii de ma ne ko fan mu ne ma mbuur ma ne ko ah ma mu ne ma waaw ma ne ko ban genre liggéey la mu ne ma compagnie la liggéey compagnie dafa bëri ay liggéey mu ne ma international liggéey bi compagnie bi la yaa ngi dégg ma ne ko ah mu ne ma waaw ma ne ko ok dinaa fexe ma ñëw ma xool liggéey bi bu dee neex na ma ma liggéey bu dee neexul ma ma ma dewlaat village waaw eh, yàlla dogal ne ma ñëw ba ma agsi si moom mu tëral ma nag si beneen néeg néeg néeg bu rëy te ñi nii ñi ngi bëri foofu te bëri nii foofu ay group groupe la waaw yàlla dogal ne ma ñëw ma ñëw ñu waxtaane ñu waxtaane mu ne ma léegi lundi dañuy dem si bureau bi nga waxtaan ak chef ma ne ko ah mu ne ma waaw léegi moo indi foofu benn booy ak man ak booy bu ma indi eh, lundi bi suba dix heures ñu dem si bureau ñu dem si bureau ñu laaj ma ay dika ma ne eh, ñu ma dentité ma ne aw ma dentité ñu ne nga am nga carte juddu ma ne ko waaw. ñi xool ñi xool ñu ne ah baana na ñu ma si deuxième service mune ma ah léegi nag yàlla dogal nga ñëw nga kan moo la indi fii ma ko ah. sama beneen booy moom ma yëgal ma ñëw fii yaa ngi dégg after si boobu naa foofu naa génnee sama kayit bi ma wol leen ko mu ne ma foo noo tudda ma ne maa ngi tudda Abdoulaye Sow mu ne fan nga dëkk ma ne ko maa ngi dëkk commune Dingiraay département de Madina Yoro Foulah région de Kolda ma ne ko région de Kolda naa dëkk mu ne ma mu ne ma lan ngay liggéey ma ne tay mbii ni liggéeyu ma dara maa ngi toogoon foofu rek jàppale sama maire bi ay liggéey sew ay dem lan nga gis ba daw lan nga gis ba daw yow lan moo sa xel bi lan moo ko jaxase ba nga ba nga daw. waaw ok très bien c'est bonne question lu ma gis ba daw. booy bu ma indi moo ma bugg a jànf booy bu ma indi fii mbuur fii moo buga bugg a jànf yaa ngi dégg léegi ma ne. Hmm. waaw moo la bugg a wóor waaw. waaw moo ma indi plan. pour jàpp ma si guddi boobu si jour vendredi vingt heures euh, trente cinq dañ ma bugg a jàpp ñoom cinq personnes waaw ñu ngi taxaw si euh, rond point bi keneen ki mu ngi taxawee nii keneen ki mu ngi jàkkaarloo man keneen ki mu ngi lakkatu si gannaaw léegi booy bu ma ñëw oo mu ngi waxu di dem man booy bu ma ñëw oo kooku naa surveillant surveillant moom ku ku ku ma xam ne kooku ma kooku naa maanaam moom ñoo nekkoon benn place. legi koku dafa dem ci kanam ku togu ci pegg poto lampu bi muné ko muné ni loxo bi yaay gis booy ku ñew oo rek muné ko ni loxo bi si ginaaw yaay de ci si booba sa sama xel bi ñaaw man ma sama boy ku da andak man xaaral ma ñew ma muné mu taaw mu xaar ma dem jël sama jugement eh, ak sama ben kayit ak sama bena chargeur ma wiré ci si bi bi si eh, rudma bi ci ganaw ma daw ma daw ma dem Espagne waaw mm-hmm. fan la ci Mbour eh, eh, Espagne Espagne naa dem daw waaw Espagne naa dem nëbbatu ji waaw mm-hmm. parce boobu yow euh, yow euh, gis ne ñii dañ la bëggoon exactement dañ ma bëggoon jàpp parce que lu ma gisee seen plan bi nii dafa ñaaw ku ma ñëw oo mm-hmm. mu ngi wax wax yu parce que lu war lu war a wax si biir kër bi la ñëw la miinoon ñëw ñu waxtaan léegi dem na ba léegi si kaw yoon bi la ma dee woo ñu waxtaan yaay ngi yaa understand léegi ma ne ko déedéet du ma àgg si foofu. bi nga da nga woo sa mbokk sama beneen booy mu ngi fii taalibe la def dafay jàng nde ku ku baax nag parce que dama ko woo ma ne ko maa ngi jël machine dama bëgg a ñëw sa koñ na xaw ma foofu mu ne ma laajteel eh, Espagne ma jël Jakarta. yow après bi nga bi loolu bi mu la dalee. Mhm. yow wax nga sa mbokk yi wala wax nga ñi sa mbokk yi affaire waaw da noppiwuma eh, bu ma dalee. Mm. yàlla dogal na ni maa ngi doon wax sama yaay. Mm. Eh, maa ngi doon wax sama yaay si mbir kaa boobu. Mm. parce que sama yaay xarit sama kola mi fekke ñaawoon na si. ok léegi après. après ma foo naa woo sama benn eh, oncle. mooy mooy. Diallo Alpha Oumar Diallo mu ngi dëkk fii di Touba Mbacké ah, ma wax ko ndegente moom tamit doomam ñu ngi ko tëj fii xamul ko ndege foofu la ñuy bëgg a xale yi lan ngay wax xale yi sa morom yi bëgg fu leen di wax man dama leen di wax rek comme nit eh, foo nekk rek danga war a bàyyi sa xel te nekkul liggéey buñ la oowee rek nga dem liggéey te liggéey bu may liggéey da nga ko war a seetlu. kontaan nga si police. non kontaan naa si police vraiment mënumaa fay police yi yàlla moo leen mun a fay parce que bu ma waxee dama leen ni ñaanal loolu kon bu damay wax fii ba suba mënuma leen si dara parce que yàlla moo leen mun a fay. yaa ngi fii ci police poste police jàmm gën lan la. Ah, ñun suñu doom ñoo réer ñoo hmm. si si weer koor. Hmm. xam nañ fi léegi. Euh, fanweer fan am nañ fi weer ak ak ñaari semaine ñu ngi réer xamuñ fuñ ne léegi ñu ngi wor rek ñu ngi lijjanti rek ñu ngi lijjanti xamuñ fuñ ne ñii ñu ngi wax ñii ñu ngi ñu ngi ñii ñu ngi wax ñu ngi Mbuur ñii ñu ngi wax ñu ngi Kees xamuñ fuñ ne daal ñu ngi réer rek ba yàlla dimbale ñu rek kii ñu dégg problème kii nii mu daw génn fii nii après ñu xoo kii nii njaatigam fu mu demoon si sirim bii nii ku toog kuñ toogal fii nii ñu xoo ko mu ñu laaj ko mu ne waa léegi ñëw leen ñu dem si police yi ñu seet fekkee dinañu mën a jàppale ba génn leen waaw loolu moo nekk suñu tànka fii nii man sama doom bi mooy Amadou Amadou la tudd moom waaw ñoom ñaar daal ñoo ñoo réeroon ñoo ñun ñoo nekk si si si benn si benn dëkk Touba Mbacké foofu lañ dëkk ñoom ñaar yëpp. gis ngeen leen waaw gis nañ léegi. boole si leen laaj xaalis ak yooyu yëpp. waaw dinañ di laaj xaalis de téeméeri junne ak juróom fukki junne lañ nekkoon di laaj. waaye waaye waaye yàlla dimbala ñu rek ñu ngi lijjati ñu ngi lijjati rek xaalis bi dem dem defuñ xaalis waaye yàlla dimbala ñu si biir dinañ def duñ def dinañ def duñ def yàlla feeñal kii nii. après ñu jox ko ak kii nii suñu sëriñ bu toog fii nii mu jàppale ñu mu ñu mën a ñëw leen léegi su ñëwee mu dimbale ñu yóbbu leen si police yi suñ demee foofu police yi mën nañu jàppale waaye yàlla ñu fexe ñu ñu ñëw fii depuis barki débu ñu fii fi si si si loxam lañ nekk fii nii waa ki day léegi su ñexee fii ba ngoon si foofu lañ nekk di dem de fanaan nii fan yi nekk depuis barki démb daal ah suñ dëkkee si frontière Gambie bi fee dëkk bu ñuy wax Touba Mbacke mm-hmm. ñun ñëpp foofu lañ jóge ñëw fii yàlla def dogal ñu nag ñu am fii suñ dëkkuwaay di jàngale fi alxuraan léegi nag fan yi nag ah, waajur yi woo ma téléphone ñu ne ma ah man dama dëggee benn booy dafa rëcc si si si yi fee si biir mbuur ñu mu ngi ñu ngi sa mu ngi sa kër ma ne ko waaw mu ngi fii sama kër ma ne waaw nag ñun tan suñ doom yi nag depuis wéeru koor xamatuñ ñu nekk ndaxte ñu ngi ñu woote ñu ngi Algérie ñu ngi laaj xaalis bi nga xamante ne léegi suñ bëggee woo yónnee xaalis bi itam di numéro Algérie lañ ko yónnee numéro Sénégal lañ lañ ko yónnee am nañ Orange Money bi am nañu Wave bi léegi ma ne leen waaw def leen dànk def leen dànk léegi nag lii mbirum tàppale la léegi fokk ngeen ñëw suñ ñëwee ñu yoon ñu woon ko yoon lii liggéeyu yoon la yoon moo mën a liggéey ba ñu gis ba ñu gis su suñ doom yi ma ne ko lool mën naa ma ne ñu ne wallaay ma ne leen ba ngeen ñëwee ba fii si mbuur suñ ko yóbbee si police buñ taxaw danañ taxaw ba ngeen gis ba ngeen jël si seen doom yi fekkee dara dara dara nekk lu des si coono boo xamante ne yàlla dogal ñu nag démb ñu ñëw fii ñu jàppali ñu nag ñu yitte suñ yitte ñëpp ñoom ñëpp ñu bàyyi si li ñuy liggéey ñu ñu ñu dem si yitte bii nii ñu indi fa ay bi nga xamante ne lu toll ay nit ñu bari lañu fa jële indi ko fii léegi nag tey itam ñu xëyaat indi ñeneen ak suñu ñaari doom yi léegi nag loolu moom dëgg yàlla ñu ngi kontaan si taxawaayu police bi bu baax a baax a baax a baax lépp lu nga xamante ne lu ñu war a defal si askan bi ñoom ñu ngi si taxaw ndaxte lii rek lañ mën a doomu aadama macha allah te ñu bàyyi ñu si ñoom xel ñu xam ne ñi police yi wallaahi ñëpp population bi war nañ leen bàyyi xel ñoo xamante ñu ngi taxaw guddi ak bëccëg guddi ak bëccëg bi ñu fi ñëwee démb ba barke démb ba léegi gisuñu fi ku toog ñu ngi si yëtti doomu aadama rek kon yàlla moo am seen fay yàlla na la yàlla fay li jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wallaahi ñu ngi da ñu ngi ñu ngi ñu gërëm ñu bu baax eh waaw Dakar ak journaliste yi ak Dakar ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm. jërë ngeen jëf yaakaar naa ne tungu ne du teew ñuy nataal yéen a dégg lii nga xamante ne nii xale bi ci rëcc wax na parents yi xale yi wax nañu kon mbir maa ngi noonu à vous de juger.